nee na jëme ko ci jëwriñam jëm di sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda ñu fiy jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal moom itam mu yàgg a topp ci gannaaw sëriñ bi yàgg jëfe ay ndigalam sëriñ bi nee na du gudd ndax fan yi dafa newoon ci Fatou waaye kon mooy jàkkaarloog nun nee na fii ay bis wala lu ko incha allahu dana ubbi te bu ubbee rek ci ñi mu njëkk a gis ci la ñuy bokk waaye yóbbante bi neena na da ñor lool mu ne ko lum jamp-jamp nanu ko jottali nee na loolu mooy liggéey bii mënu santoon mu xam ne ñu ngi si nee na ñu ngi siy def yitte di si def pasteef ak taxawaay te xam na ni itam ndigal rek moo leen tax ndigal rek moo tax a jóg li nu digal dañ koo fas yéene jëfe ndax xam na ni looloon nu fi bàyyi ndax xam na ni li mu nu digal dara luy nuru ak yàq lu jëm si si kon nag moo tax xew-xew yii fi xew sunu diggante <coughs> ak njabootuk seen jéeri waa daal mooy xew-xew bii amoon ci dëkk bi démb loolu ñoom njaboot gi ñëw nañ fi démb waaye kàddu yam leen si waxoon rek dana leen woon diggante Cheikh Ibra ak seen jéeri na ngeen xam ne dara sikku sa ndax loolu dafa weesu. njaboot gi dara sikku ci si ñoom. kon loolu nañu xam ne. sëriñ Touba ab liggéeyam. fu mu jógee rek. nee na seytaane man day lang sa waaye nag du sa am ndam kon loolu moom. na ci xel yi dal. ndax Serigne Abdoulaye waxoon na ni. Serigne Touba. Serigne Touba. dindi na fi yàqu seytaane dindi na fi yàqu seytaane. lu ngeen fi gis mu yàqu rek. yàqu bakkan la. waaye yàqu seytaane Serigne Touba dindi na ko. muy xatatu fil bahri. seytaane wa kap kaboo. loolu mooy rey na seytaane. kon njabootu Serigne Touba gi itam. dara luy nuru lor waru si am. nee li si des nag doxeenu àdduna la rek. sëriñ bi nag xam na ni ñépp ak njabootam lañ te lu baax rek leen tax a jóg te kenn ku si bëgg a yàq amut moo taxoon li mu si war a waxal boppam incha allah bu toogee ak nun daanu ko gën a leeral waaye weesut soññ gi si liggéey bi ak fi war a tàmbalee ak fi war a yem ndax yàllaa ko tuddul sax waaye laata màggal gi la ko fasoo woon ba wax leen liggéey bi ni mu ko bëggee ak ni mu ko xalaate ak ni mu bëgg nu di ko doxale ak yi ko siiteel ndax li si des nag xam na ne doxeenu àdduna la te yéen nun nee na li Sëriñ Saliou daa wax ne ndigal daa mel ne caabi bu ëppee du tijji. bu yéesee du tijji. bu yéesee du tijji. nee na ñun xam nañ ni. lii seen ndigal. lii sunu ndigal. mooy bëgg mooy bëggug sëriñ bi. duñu ko yokk. duñu ko wàññi. ndax sëriñ Touba. waxoon na sëñ mu wuteeg yéen. ne ko Ibra Fall de li mu wuteeg yéen. bu ma ko defarloo néeg bii. mu liggéey ko ba mu àgg. ba mel na mu war a mel. ba mel na mu a mel. ma dugg fi di jaamu yàlla. ma dugg fi di jaamu yàlla. ak ñu taal ko moo yem si moom. loola nag. nee na pàgguteef la boo xam ni. faggul na ne ko. mooy rogalaat si nun mooy sunu dund gépp Serigne Touba la. dara du ko raxit. dara ko raxit. te moo nu ko faggul. kon nag Serigne bi. lool rek mooy li ci xew. loolu rek mooy li ci xew. yabal na si na ko si njaboot gi. waaye dana woon naa leen njëkk a gis. waaye ba waxtaan ak ñun. door a waxtaan ak ñoom itam. ñu xam ne lépp. nee na leen itam. nee na leen itam. lu ci nuru lu métti. lu lu métti. nañ ko def ak cant. te xam ne du yàq dara. liggéeyu seytaane la. seytaan du am njaboot du amul yoon si njabootu Sëñ Tuubaa. te liggéey seytaane du amul yoon si njabootu Sëñ Tuubaa. inna say inna ibaadi laysa laka aleykum seytaan. loolu. loolu. nañu xam ne képp ku bokk si njabootu Sëñ Tuubaa. nañu xam ne képp ku bokk si njabootu Sëñ Tuubaa. dugal na la si biir. ndax sëriñ bi nee na dëkk bi. ndax sëriñ bi nee na dëkk bi. ni ko yàlla bindee. nee na njaboot gi dafa tasaaroo. te ñëpp tolloowuñ. ñëpp bokkuñu. ñëpp bokkuñu. loolu nag bix di ayali bilaa bukaay yi loolu la sëñ Tuubaa daa wax moo jóg si yoon wa ñëpp si fekk si ko sax ba sa wax na ko fu bari ci ni mu yare nit ñi ni mu leen di teg ci aw yoon kon nag nun xam na ne fa sunu maam tegoon ab tànkam mun nu fa àgg ndax sëriñ Abdoulaye dafa waxoon ni sos mooy sos moo jafe. Hmm. waaye roy yomb. waaye képp koo bëgg doon. nee na képp koo bëgg a doon. boo ko royee boo ko royee di moom. daal ne roy nag. daal roy nag. mooy fu nit tege tànkam. mooy fu nit tege tànkam. nga teg fa sa tànk. mën na laa jëkk àgg. mën na laa jëkk àgg. waaye bu àggee rek bu àggee rek nga àgg. yéen a ci yoon. nee noonu nag ñu ngi ci yoon. kon nag sëriñ bi nee na. loolu rek mooy kàddu yi. mooy ànd koog noonu. ànd koog ñooñu. ngeen xam ne genn njaboot la. ñu xam ne genn njaboot la. taalibe yi dëkk ci dëkk bi. yi dëkk ci dëkk bi. xam ne sëriñ bi yërmaane rek la leen ëmbal. ndax nee na seeral na yàq taxu yàq taxu noo jóg. ak nit ñi nañ ko xamee noonu. ñu itam. lu ne yërmande si si jiitu. waaw suñu borom ma ko wax ci alxuraan waaw. loolu. mooy li ci ne. li ci ne. ndax ñëpp maase wuñ ci baax. ñëpp maase wuñ ci wuñ ci bon. waaye dëkk bi itam. waaye dëkk bi itam. kon nañu xam ne. sëñ Tuubaa da koo woote. sëñ koo woote. mu nekk daara. mu nekk daara. mu dem ba àgg nag di àdduna. mu dem ba àgg nag di àdduna. ñëpp ñëw. Mm. bi ñëpp ñëwee nag. ku ne indaale say aada. aada ya nga bàyyiwoon ci biti. aada ya nga bàyyiwoon sa biti. ngeen daal ko ci biir ko ci biir dëkk. loolu kon daa laaj nee na loolu kon dafa laaj saytu. saytu gi mooy. saytu mooy. ñu xam li taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi. ñu xam li taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi. ñu jéem saa góorgóorlu. nee na ñun nag ndigal loolu la ñu am. ngir sàmm ko. kon nag. incha allahu bu ñëwee rek. danañ waxalaat boppam wax ji génnul lool rek si nim ko ko waxee mooy ñaaxaat ak sant nu ak gërëm nu ak nit ñi tam dégg xam ne li nuy def ndigalam rek tax nu di ko def waaye juguñu ngir lor kenn ndax ñi dëkk si dëkk bi ñenn ña seen maam ya ñoo jaayante woon ak sëriñ bi ko ànd ak moom. ñi ci def itam ñi ci des itam. fekk si leen gannaaw bi fekk si leen gannaaw bi. ñu laaj sa ñu ngi ko mën a taxa. rek mooy ci nee na lool rek mooy li ci ne. ñee dañoo njëkk. ñee dañoo ñi fekk si leen ci si leen ci gannaaw. yàlla def na nag. yàlla def na nag. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. seen maam ya ñoo gàddaayoon. seen maam ya ñoo gàddaayoon. fekk si sëriñ bi. nee na daanaka doo si gis na naqari dañ ko fagul. nee na ndax dañ leen ko fagul. waaye nag li ci des nag. waaye li des nag. fekk si waat daa gën a bari. nee na li fekk si waat dafa gën a bari. kon day laaj ab liggéey. liggéey booba nag. la sëriñ bi gis. la sëriñ bi gis. tax mu waxoon ko si làmmiñam. tax mu waxoon ko ci muy li ko fi neexut. muy li te muy loo xam ne itam du lum njëkk a tere. tey mooy loo xam ne du li njëkk a tere. du du lum njëkk a tere. a ndax yàllaa ko tere. Rasulullaay tere ko. sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa tere ko. mu dikk yeesalaat kilifaam yi mu fi fekkoon itam loolu rek lañ doon sàmm lu si ne itam digle ak tere daa am fu war a tàmbalee daa am fu mu war a tàmbalee ak fu mu war a yem li nga xam ne li nga xam ne rek moom ni ko ci soññee rek ni ko si soññee rek nam leen ko waxoon ci làmb mooy nam nu ko waxoon ci làmmiñam mooy lépp itam mooy lépp itam ngeen di ko doxee ci nam leen ko sante mu di nu ko doxe ñu di ko doxee ci nam nu ko sante woon ban ko ëppal ban ko yéesal xam na ne te xam ne nun itam. xelam na ci loolu. xelam dal na ci loolu. ndax waxaat na ci lam ndax waxaat na si lamiñam. doyloo duñ si. doyloo nu si. moo tax mu moo tax nu dénk nu ko. te ngeen te bi ñu koy siyaare si màggal gi. si ginnaaw màggal gi. wax na ko si lamiñam nuy dégg. kon loolu doy na sëkk. nee na mi ngi sant bu baax. di gërëm bu baax. di ñaan ñu yàgg ànd liggéey bi.